ci tooñ bi xam nga tooñ muy journaliste yi ak ñun ñii ñëpp dafa am loo xam ne lu leer la wolof comme ni ma ko waxee woon léegi moo ne wax sa wax waxi jàmbur du wax te yaakaar ne troisième mandat bi waxi Macky la du suñ wax parce que moom la Sénégal yi yëpp fal deuxième mandat bi matagul am te itamit li tax ma ne tooñ la moom mu nekk président de la république wax ne man am naa mandat bu njëkk mandat bu ñaareel bii am naa ko te man maa wotelu loi bi bëgguma ku ma ko waxati ndax manta nekk kenn mënu fee nekk lu passé ñaari mandat mu wax ko ñëpp di ko dégg waaw léegi nag su fekkee ne nag nit ñi dañu ko nag di ko ko waxal te moom waxu ko mais tooñ la su fekkoon ne dafa waxoon ne man dama koo bëgg kon ku am sa xalaat ku ne mën nga ko cee sànni lu tax li mu wax nit ñi mënuñ ko koo nangul man loi bi maa ko wote déglu rek maa ko wotelu bëgguma ko munta am bëggatuma ku ko wax saawaay bëgguma nangam te xam la képp ku ci wax danga koo tooñ te tooñ baaxu tooñ du démocratie damaa bëgg ñun ñëpp ñu xam lan mooy démocratie <clears throat> démocratie moo génnee nit ñi ci njaam bu njëkk tubaab yi dañ la daan not tooñ la duma la te doo ko jooytoo fenn dégg waaye nag képp koo xam ne kii wax nga loo xam ne li ci nit leeru la xamoo ci dara te kooku ne la bëgguma ko bu ma ko waxati boo ko waxaatee da nga koo tooñ su la ëppee doole duma la ak ku munti doon nag moo tax man képp ku ko wax te mu war laa mën a daq man maa ngi koy ñaan ku ko wax rek boo ko waxee ci ci subaa bi balaa tàkku sànn la dàq ak koo manti doon mhm. waaw parce que da ngaa tooñ ku tooñ mhm. dañ koy duma euh, gisoo ne Macky doon na gën a close débat bi euh, ndax moom euh, lépp lu ci am ci ay wax mu ngi koy dégg te xam na ki ko wax pour mu gënoon a mën a close débat bi est-ce que doonul gën moom ci boppam mu génn position bi nga xamante ni taxawoon na ko ak discours bi mu yëkkati woon bi muy falu ba ne troisième mandat jeex na fi mu taxaw confirmer waat loolu ci kanam. waaw mais Sénégalais li ngeen bëgg mooy lan kilifa gu toog wax. ñëpp di ko dégg ah wax ko mu leer nañ nga ne na ci dellu saa di ko wax fan la koy teg. loolu yanuwul maanaa maalaw bu mag loolu yanuwul maanaa. Hmm. loolu yanuwul maanaa jaaduwul. Hmm. su fekkoon ne dafa noppoon waxul. Hmm. nga ne ma war na cee wax ma ànd ceeg yow. mais ñi ko gën a jege bu ñu bu ñu génnee ci langue yi. mais ñi ko gën a jege suñu waxee. réew mi ñu fi nekk du keroog ci son parce que li am solo. mooy man maalaw bëgg naa Macky Sall fal ma. Macky Sall yónniwu ma ma tëdd ci suma lal di xalaat naan su waxee lii neex na ko su waxee lii neex na ko ma génn wax wax joo xam ne wax loo ma ko parce que man naa la jël pour mu fay ma mais bu dee bokkee ci sa njaboot njaboot dafay njaboot day yem njaboot na wax luñ ko wax loo na def luñ ko def loo te tamit boo déggee mu ne loolu mënul nekk waroon caa wax parce que waxam la du sa wax moom lañ fal moom moom deuxième mandat moom moom premier mandat wax na ne lii def naa ko loi bi maa ko wateel bëggatuma ku ci wax waaw léegi lan laay dellu si waat di waxaat fan laay dellu si waat di waxaat yow tamit loolu yarul maanaam. maanaam bés bu mag yi euh, euh, taxawee déclaré li nga xamante ni mooy troisième mandat lan mooy doon position. loolu yegg guñ ca guñ ca yeggee ñu xam ko man lu ma yeggagul du ma ci tontu parce que loo xam ne ni dañ koo wax nit daal dañoo am jot di wax lu ñu leen wax loolu waaw nit nag booy wax lu ñu la wax loolu xëy na yow yaa ko xam mais man lu ñëwagul dégg gu du ma ci wax ci xam li ma neex daal mooy li wax ci làmmiñam ma dégg comme affaire laa te sénégalais laa te war naa am kilifa li mu wax ci làmmiñam ma dégg ko loolu laa mën a gëm mënumaa gëm lu mu waxul mënta nekk bëgguma ko du am mën loolu laa bëgg bëggatuma ku ca dellu te duma ca dellu te ku ci dellu defe naa danga koy tooñ ak koo mënti doon